Merci, Président. Donc, euh, vraiment, d'abord remercier l'invitation. Hein, la première journée euh, on aura l'occasion à hein, déjà nous ñu une grande fête donc, peut-être que cette fois sera élargi aux trois trois zones aussi mais déjà mais ni ko président waxee rek maa ngi baax encouragé ndax mais ngeen jàpp rek xam ne li foo la agréé donc arbitre bi aussi ngeen respecté ko ndax moom xam-xamam compétence am lay mettre au service pour que alors le jeu puisse se passer dans les conditions kon kooku dañ ko war a respecté jox ko gëdaam yéen entre aussi comme nous ma ko waxee rek ngeen xamné vous êtes des frères lii moo leen dajale demee bu seree daa ailleurs donc vous êtes dans des amis kon ku ne japp ci rek té li aussi diglène ñu ñaan yi diglène ay yenen lenen top ci ndax aduna nak ay avancé mo nañu dem bu fi am gazon am leneen aduna ay di avancé na ngeen ko ñaan rek yalla mo ñu ko jàpp ak ñoom alxames ndax ñooñu tam bu ñu mënee moom ak monsieur Kopp bu ñu mënee li ñoom la ndax ñooy nekk ca commune ba di défendre alors li nga xam ne moom ngeen bëgg bu ko kon moom ñoom ñu ngi nekkee représenté conseil municipal dama leen di remercier te yéen itam ngeen ngeen ngeen encouragé ci liggéey bi jërë ngeen jëf. S'il vous plaît, laissez de l'espace. Voilà. Allez, merci beaucoup. Allez.